Alassane Hann maa ngi lay nuyu. maa euh, nga bokk ci collectif des victimes du terme sud actuellement ngay traversé ay moment yu métti di réclamer aussi en même temps euh, dix-huit millions état Sénégal wala sax compagnie Air Sénégal est-ce que mën nga ñu expliquer situation bi nga xam ni actuellement yaa ngi koy dund. waaw bu ngeen fàttalikoo rek man maay euh, coordonnateur du collectif des habitants du Terme Sud Terme Sud nga xam ne ñun dañoo dëkkoon ci ay kër yoo xam ne euh, këru état du Sénégal la état du Sénégal euh, am jox ñu ci dison le droit de préemption ñu morcelé site bi war ko joxe ñu dëkkoon fa pendant plus de quarante ans suñu doom yëpp judd ko di ko état di joxe ñu defar suñu dossier ba état war ñoo jox am euh, autorité militaire yu euh, joge ca kaw fekk ñu ci jaay ñu doole dund xataal ñu génne ñu euh, ci bu ñaaw koo xam ne yéen ñëpp ko teewee le 30 septembre 2020 léegi nag man mi nga xam ne maa nekkoon coordonnateur du collectif bu ma nekkee amee fa lañ ma fekk dund ma xañ ma samay mission sama avancement samay stage lépp loo xam ne tey ji moo waroon tax man sama bopp ma gis sama bopp sama jaboot gis ci boppam euh, ci ci anam yooyu euh, toog bu mënatuma toog armée nga xam ne am métti mu métti lool parce que boo dugg armée da nga ciy dogu euh, ci laa génne armée bi nga xamee ne directeur général compagnie sénégalaise ñëw na fekk si ma ñëw ñaan ma pour ma ñëw jàppale ko bi ma demee foofu di ko jàppale gis na moom ci boppam Euh, caaxaan ya mu nekk woon euh, mille neuf cent quatre vingt quinze ci at yooyu ba taxoon ay bakkan yu bari rot yi caaxaan yooyu ba léegi ma nga fa sinon sax dafa gën a jéggi day ci laa toog nag nga xam ne compagnie boobu euh, autorité yi nga xam ne ñooy ñoo ñooy autorité nguur gi lañ ci daan yëpp waaw ma xool nag xam ne lii bu ci nit ñi waxul musiba catastrophe day am ma dox ci li ci war a dox yëpp wuta Euh, ni ko compagnie bi bindoo woon euh, comme ni ma ko waxee rek compagnie boobu warutoon na mës a mës a exister ci euh, plateforme aéroport yooyu aéronautique mm-hmm. léegi nag bi ma toogee ba jaaxle ci laa def ko rapport circonstancié yónnee ko autorité yi pour dégager samay responsabilité alerter leen pour ñoom ci seen boppam ñu jël ci seen bopp ñuy jël seen matuwaay balaa musiba di leen dal li loolu moo waral Euh, moom nga directeur général bi ak lobeem ñu gise ne ko léegi moom na ma licencier simplement ba évoquer ay motifs économiques rek pour mën a taxali ko man ñoom ñu mën a continuer def seen njombe ci anam yooyu laa leen yóbbee tribunal ba ma leen yóbbee tribunal tribunal daan leen ñu war maa fay ba ñu demee première instance appel ba cassation léegi nag tribunal euh, jox ma dëgg euh, ma am sax certificat de non appel non opposition non opposition mais ba léegi mënumaa jot ci xaalis boobu donc euh, bu ngeen seetloo may liggéey armée dogu jëm sama réew pendant plus de vingt cinq ans jàngee bitim réew ñëw toog ñu topp ma dund xataal ma ndax loo xam ne teguñu ko fenn jaay ma doole xañ ma salaire sama njaboot di di sumranke ma dem aviation civile mu fekk ma fa euh, lëkkaloog euh, compagnie sénégalaise mu jëlee ma fa euh, ba pare teg seen tànk ci sama képp koo xam ne ci anam yooyu bëggoon nga maa jël sax dañ lay menacé ne la kii boo ko jëlee ñu nangu sa agrément xam nga léegi nag jaay ma doole ba yàlla mi dara teewul def ñoom ci seen bopp ñoom ñëpp la yàlla lëkkale leen boole leen ci benn catastrophe aérienne boo xam ne yéen ñëpp teewe ngeen ko keroog le cinq cinq septembre deux mille quinze léegi euh, roplaan bu dem ba ci kaw mbëkk beneen roplaan dem da dem daanu ci biir géej gi réer kenn gisul leen kenn gisul cadavre yi léegi nag euh, dossier boobu ma nga tribunal léegi nag man mi nga xam ne boobu ba léegi euh, bi ma jógee bi ñu jógee terme ci ku nekk riir wutali foo jëm man dama dem dëkkal sama jaboot loo xam ne fala sama doole toll waaw ñun ñu ngi dëkkoon ci ay superficie de quatre cent mètres carrés ah ñu ma mujj dugal sama jaboot tey sama superficie si matul sax soixante carré carrés ñëpp lëkkaloo ci benn néeg boo xam ne ñëpp a ci bokk fanaan parce que sama doole foofu la toll may xaar nag ñu delloo ma ci samay droit fay ma samay droit ma mën a jël sama jaboot en charge boobu ba léegi ñu continuer di ma xeex teg ci seen euh, teg ma seen doole mënumaa liggéey fenn mënu nanguwuñ ma delloo sama sama sama sama sama sama émolument de salaire sama dommage intérêt fii ma toog fii may wax ak yow nii euh, man ci sama bopp. Hmm. Euh, sama doom rek laa doon xaar examen jeex mu mën a toxu dem euh, yaatal leen pour quand ñu mën a dund décemment engagement écrit bi ma jëloon tey jii la jeex maa ngi nii ci terrain bi di wut appartement boo xam ne foofu laa war a dugal sama njaboot hmm. muy lu metti loo xam ne kenn teguma ko kudul lii armée lii aviation civile te boo xoolee par civilement responsablement civil euh, responsabilité civile état du Sénégal mm. léegi nag moo waral man ci sama bopp boobu ba léegi maa ngi saisir autorité euh, état bi pour xamal leen man ci sama bopp citoyen sénégalais la de surcroît mm. un militaire jànkoonteeg jafe-jafe yi nga xam ne euh, bi ma bindee autorité sénégalaise bi par rapport à sa ñoom ñëpp dañ ma waroon a protéger waa parce que à la limite lanceur d'alerte laa woon ci anam yooyu bu ñu bu ñu defoon li ma wax tey ji catastrophe bi du am ñu ñàkk seen bakkan bu ñu ñàkk seen bakkan bu ma bu ñu defoon li ma wax tey ji armée du mën a taxaw bay expulser soixante dix neuf familles yooyu de façon barbare inhumaine et illégale tey ah, yoon yëpp wane nañ ko dégg nga président Ousmane So premier ci ci temps yooyu. ñëwoon na ba wane dossier bi ba ñëpp gis ko léegi nag. Euh, fii may wax ak yow nii euh, catastrophe boobu moo fi am famille yëpp ay souffrir dégg nga boo boo boo wàññee xoolal barki démb rek ñàkk nañ koo xam ne. Mm. Euh, ñaari at a ngi nii mi ngi tëdd traumatisme jàpp ko mu AVC. ñeneen na ngi tëdd seen kaw lal même situation la ñuy dund ñii perte nañ seen mémoire léegi nag état du Sénégal moo war a dellu si moom laay ñaan mu dell si à travers de correspondances yi ma adressé président de la République. premier ministre ministre des transports ministre de la justice ministre de la justice moom recevoir na ma te am naa yaakaar ci ne moom ci boppam lam lam ma euh, promettre dana ko jëfee parce que judiciairement nee na dina saisir sama avocat ak huissier bi pour ñoom ci seen bopp ñu recouvrer li nga xam ne mooy créance yi ma yi ma war a yi ma war a waaw foofu daal laa ci toll muy lu métti métti yoo xam ne man ci sama bopp mësuma xam euh, situation euh, disons euh, locataire fii mu toll nii bi ma coono di jàppee ci laa dem kër gi ma amoon sax ci laa ko jaay pour mën a dundal sama njaboot fii mu toll nii situation bi li ñuy demande rek mooy état bi Sénégal man ci sama bopp na ma delloo ci samay droit mm. te mbirum terme ci bépp na na na leen delloo seen droit ci ci ci foncier termitique bi. Mm. parce que gis nañ fan yi Ousmane Sonko bi muy wax si wàllum foncier bi nee na nañu dakkal bépp travaux foofulee ca terme sud euh, est-ce que déggoon nga ko. waaw dégg nañ ko loolu c'est tout à fait normal parce que terme sud bu ngeen ko xoolee euh, ci njëlbeen ba fii ñuy wax ak yow yi la fay ñi fa jaar yëpp teguñu ko fenn euh, dara du ci yoon. dara du ci yoon ñoom dañu ñu jaay doole ëpp ñu doole euh, suufu état du Sénégal tey ji boo xoolee amul fenn fooy dem ba nga gis suufu état du Sénégal armée jël ko daal di koy euh, bunkériser euh, def mur de clôture ba kenn du ci mën a accéder loolu mooy lan jaay doole boobu mooy lan état bi ci boppam moo war dellu si jël suufam euh, nam nañ na mu war a nekkee mu jox ci képp koo xam ne moo ci yeyoo parce que quand même euh, soixante dix neuf familles yooyu amul kenn ku mu war a mën a jox bu suuf terme si avant ñoom ñoom d' abord avant qui que ce soit bu ci bu bu bu ci jo bu ci jógee euh, collectivité wakaam yi sensibilité yëpp ku ci nekk gis sa bopp ah citoyen sénégalais postulant yi ku nekk boo ci waree am ñu jox la ci nga am waaye toog rek bàyyi situation bi muy mel nii euh, ba mu euh, indi euh, li dégénéré woon noonu ci fan yi passé loolu yaakaar naa am na lu ko gën te am nañu yaakaar ne premier ministre Ousmane Sonko la mu wax dana ko jëfee parce que dossier bi dossier bi la. voilà Alassane Hann fi ñu toll nii fan ngeen toll ak dossier judiciaire bu crash avion Sénégal Air. waaw dossier baa nga tribunal ba bañ fa jógee la dernière fois dañu ko renvoyé au vingt huit novembre vingt huit novembre bi nag juge bi décidé na de képp koo xam ne site nañ la en tant que prévenu ou en tant que témoin na nga ñëw teew parce que boobu ba léegi euh, catastrophe bu toll nii catastrophe aérienne euh, disparition d'avion cadavre yi tax kenn mënu leen gis euh, catastrophe boo xam ne dafa humilier disons le système aéronautique sénégalais Euh, euh, ñu war koo càmbar àddina yëpp di xaar ñu rendre verdict ñu koy foowee ni ñu koy foowee euh, gàcce mën ko weesu loolu tribunal nag ñoom ci seen bopp def nañu seen mea culpa xam naa ne nag ci anam yu leer dinañu ñu képp ku ñu convoqué ci dossier bi da war a wuyu ci parce que leeral li nga xam ne keroog ba ñu def enquête judiciaire procès verbal ba ñu la dressel nga leeral ne li ñu def dressé ci procès verbal boobu loolu nga wax yow ci sa bopp wala bu fekkee yow da nga koy infirmer nga infirmer ko devant la barre loolu mooy wax. Euh, dernière question peut-être am na appel boo bëgg a lancer président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak dossier Terme Sud ak jafe-jafe yi nga xam ni victime yi ñu ngi koy dund actuellement ku si ni yow. waaw président Bassirou Diakhar euh, Bassirou Diomaye Faye euh, premier ministre Ousmane Sonko dama leen di ñaan rek euh, parce que quand même bakkan ci boppam dafa fort booba ba léegi nous sommes à la seizième victime ñeneen ñaa ngi seen kaw lal tëdd seen famille yaa ngi souffrir ñu ngi ci problème mu location ñu leen di expulser à gauche et à droite alors que ñoom la ñu def rek mooy nekk sénégalais nekk ci suufu Sénégal Sénégal jox leen euh, kàddoom war leen a jox seen i droit ñu jël seen alal yëpp daal di koy teg ci kër yi ñu dëkkoon transformé ko réhabilité ko tey jii kër yooyu armée ëpp na leen doole ñëw fekk ko fa daal di koy terrassé daal di koy rasé ba pare bëgg ko akimoo ah, muy lu doy waar loo xam ni kenn mësu koo gis ñu may ñaan nag président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko dans ci ci ci lu gën a gaaw mu delloo famille yooyu ci seen i droit pour que famille yooyu quand même euh, bi mën a wàcc mën leen a wàcc ba euh, série macabre bi mën a dakk man mii nag nga xam ne man la la maay coordonnateur nekk victime euh, de ce dossier du Terme Sud nekk victime du dossier de du crash de l'avion de sénégalaise maa ngi demandé président Bassirou Diomaye Faye bind naa ko premier ministre euh, Ousmane Sonko bind naa ko euh, ministre des transports aériens El Malick Ndiaye bind naa ko ministre de la justice bind naa ko nañu xool sama dossier nañ ma woo nañu waxtaan ak man man ci sama bopp am na lu bari loo xam ne mën naa leen koo leeralal ci dossier yooyu ñaari dossier yooyu ba pare jàppale leen ci li nga xam ne mooy seen jafe-jafe yi ñu am actuellement le au niveau du système aéronautique sénégalais. merci beaucoup Alassane Hann ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci madame ñuy fàttali ni Alassane expert nga aéronautique euh, nekk coordonnateur du collectif des victimes de terme sud en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax